برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان هنيئا لإبراهيم لاح هلاله جمال البدا للناظرين جماله هلال ربيع في جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله ministre daf la jox loo xamante ne dalaa téyel boppam te ku mën a doon su la téye rek nga bàyyi ko fa boppam ku mën a doon bandi sax su la téyee nga bàyyi ak sa bopp ndax sentiment yooyu ngeen am cheikh ibrahim yes nag bëbb gi ndaw gi jëmandoo ci ñoom du dara dul xam rek la ñuy ut ci moom gën a mën a taxawal dégg nga seen waref seen seen borom surtout nag jamono ji nga xamante ne ñu ngi attaqué islam dégg nga surtout macron nga xamante ne macro la rek lu ñu sip la dégg nga te macron ñett moo ko dal moom moom insouciance dafa nekk ci moom maanaam amul benn souci si euh, tudd Muhammad Rasulullah nga xamante ne yonent bi nga xamante ne lu ëpp deux milliards yi doomi aadama mu ngi dund ci seen xol dégg nga nga mën a laal kooku loolu insouciance bu amoon souci si ne économiquement mën na indi problème dégg nga problème sécurité boo laalee yonent bi mën na amaat menace bu amoon souci si loolu yëpp lu laal ko mel ni yonent bi boo demee ci jàngalekat yi sax ñoom dañuy wax ne nit ku siiw bu ko kenn laal loi da koy protéger ndax laaloo ko da am lu bëri looy laal kon Macron moom insouciance si la nekk ñaareel bi Macron déchet humain la xam nga li ñuy wax déchet humain mooy koo xamante ne li gën a bon ci àdduna bi yow nga mën a fëgg sa dënn ne yaa koy def yaay porter combat boobu déchet humain Macron figurant la li lay woon ne la mooy waxeewul làmmiñam xoolewul bëtam dégloowul ay noppam jëfewul ay cëram fu toon nii benn benn marionnette la balaa may ñëw balaa fi mu toll nii moom benn marionnette la boo xamante ne dañ koy yóbbu gauche ak kon kooku taxuñoo jóg te ma leen di lancer alert mooy Macron dafa am problème lu ko dal moom Macron dafay xeex pour Union européenne mu mën ko jël te du ko jël Merkel mënu ko remplacer benn loolu tax muy attaqué islaam te allemand yi bëgguñ ko laal islam parce que ñoom ci jàmm lañ ne Macron dafa bëgg a gagner France moo tax muy attaqué islaam Macron euh, ni nga teeti Erdogan dafa ko fay leeram parce que dafa defal matériel bu rëy nar kaa jaay ay milliards organe def anti loolu dafa am problème bu rëy boo xamante ne yaakaar na ne bu laalee islaam attaqué ko doyadal ko dana ci falu munta ne te dafa amal leneen lu am dañ tayuñ ko ñi bon ñëpp ci àdduna bi yàkkamti nañ jullit yi am bés ñu jaaree fa laal yonent bi pour laal seen xol dafa am problème yu bari yu daje waaye nag loolu yëpp nag alxuraan jàngal nañu ko laa yazaaluuna yuqaatiluuna duñu dañu di leen waaye nag ñu mën a am taw fi may tëjee ci question boobu mooy dañu wax ne isa aradallah nasra fadilatin tuwir ataxalaha ana lisaani xasud bu yàlla na ree tas dëgg walla mbaax ki baax mënta wax mbaaxam ndax ku baax ku tagg boppam ki gën mënta wone boppam waaye yàlla dafay lem sa mbaax gi ak sa dëgg gi teg ko ci làmmiñu yàqkat mu wërti la publicité dafa bon dafa bon dafa bon dafa bon li mu indi dafa bon dafa bon dafa bon bu boobaa nit ñëpp braqué ci yow ak li nga indi te buñ braqué ci yonantu beeg lu mu indi bu boobaa ñu xam leen ne dëgg kii daal amul dara lu bon loolu julit mënu ko yonantu bi mënu ko yàlla teg eh, stratégie borom bi la kibaax ku bon la koy booleel mu weer ko ba ñëpp gis ko boobaa ñu xam ne kii kenn gënu ko bàyyi ko bon moo tax ñun ragaluñ ñu tëjee laaj bi euh, ki nga xamante ne mooy taalibe bi bu ñëwee ba xës ñëw ci fi euh, nga xamante ne mooy Medina Baye ana ban taxawaay la war a am ba bu muy delloo ak bu delloo tamit li mu jëlee ci gàmmu gi nan la ko war a mën a continuer moom ba mu indi indi ay ay euh, xarbaax dundam xam nga yàlla dafa wax dafa wax ci xadisul kursi ne yàlla dama am ay bés yoo xamante ne pay yàlla bi da ciy nokki mu ne daw leen ngeen fekkee ji alquran waxat na ne suma Afidu min xaysu afaada nas bu nit ñi bëppete jëm barap yaakar fa njëriñ bul coog jógal bul uta xam sax bul uta sax comprendre jógal loolu la alquran da buñ la fa bayyi kon ñew daw ci ñew lu am solo la waye <coughs> ñun ñewuñ ci mbeukante ci lëndëm waaye dañu ñew ci dox ci lu leer moy bëgg yonentu fi talibé wara jëlé nak du dara téwlul xolam li fi taalibe jëlee du dara lu dul kat mooy Muhammadu Rasulullah boo mënut a jël jikko yëpp nga àbb ci moom benn jikko boo xam ne da ne fii ren ba déwén ci lii moom danaa ko saxal sama bopp boo gàmmoo gàmmuwaat gàmmuwaat juróomi at faw nga soppee moo tax fajar yi gàmmu résultat bi mooy bu fajaree baay da doon toog ne jàngale yoon tu da fajar da yëkkati loxoom ne kan moo bëgg a ànd ak kii ci dundam kan moo bëgg a jox kii boppam mbooloo yëkkati mu ne ku ne comme fam taxaw ginnaaw gi guddi gi yëpp mu ngi leen di jàngal moom ak ay jabaram moom ak noon yi moom ak alalam moom ak nàkkam bam ñàkkee bam nangam nit ñi di déglu foo fajar mu ne ku bëgg a jox kii boppam mu ne man bu boobaa mu ne ashadu ashadu loolu moo doon résultat gàmm moo tax nag résultat boobu euh, moo doon résultat gàmm waaye buñ fi jógee nag jikko yiñ fi jëlee waxuma yëpp ñu jëlandoo ko waaye benn moom war nga ko téene tabem gi